asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 25 mars 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay yi tey nag fi ñuy xëy doore ko muy yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu lamb yëglikaay bi nag tey fi mu xëy ñëw ci diggante Balla gay numéro de ak Sa Thiès ndonoy duubalees yi daal la ñu xëy tey wan xamal ñu ne daal ñaari mbër yoo xam ne daal ñooy donoy duubalees waaye nag seenu taxawaay ci lamb moom ak bokk wala ak ñàkk bokk am na ca ndax li leer ba leer Balla gay moom bu fekkente ne moom grand rendez yu mag a mag yi da koy gañe ji di Sa moom loolu moo ko të boo xoolee combat yoo xam ne yu magoon la ci moom muy diggante mag Malick Niang wala digganteem ak ka nga xam ne moo di Boy Niang da ñàkk te ka nga xam ne moo di mag jarak di Balla moom taxawaay boobu amewu ko ci làmb ji moom boo xoolee rendez yu mag yépp presque gagné na ko moo tax yëglikaay bi tuddee ko lom bi nga xam ne ni bokk wala koo xam ne daal grand rendez-vous yi moom da koy faral di gagné yëglikaay bi xëy tey ñëw ci ñoom ñaar leneen loo xam ne tamit sunu làmb xëy na tey ñëw ci muy ki nga xam ne nii am na rendez bu mag a mag a mag muy ka nga xam ne moo di Siteu Siteu nag yëglikaay bi dafa xëy ñëw dugg ci écrim ba nga xam ne moo di lamsaar xamal ñu ne daal li leer ba leer fa nga xam ne daal moo di ca lamsaar moom boo xoolee muy nees wala muy tijaan fay ba ci fëgal a daal seeni mbir moom ndax est-ce que doyul waar par rapport nanay taxawe tey làmb ji waaye bu dee Siteu nag moo tax yëglikaay bi sampub laaj ne est-ce que nag léegi moom mooy boosu fa nga xam ne moo di lamsaar sunu làmb xëy ñëw tey wax nu ko mel ni ki seen écrit booba ka nga xam ne moo leen di tàggat di Max Mbargane moom xëy na ci yëglikaay bii di sunu làmb di wax ak ñàkk d'accord am ca la nga xam ne nii moo di doxaliinu CNC bi nga xam ne mooy rajo ba ñu rajo Sitor Ndour ak arbitre ya nga xam ak ya nga xam ne aj nañ leen mu mel ni kon daal Max Mbargane tey moom itam séq na waxtaan wu yaatoo yaatu ak yëglikaay bii nga xam ne moo di sunu làmb ngar daaju fa wax fa lu yaatoo yaatu ci yëglikaay bi keneen koo xam ne tamit yëglikaay bi ñëw na ci moom muy fallu Ndiaye mi nga xam ne daal fan yi gis nañ ko ci Leewtoo TV muy wax ay xalaatam ci làmb ji ak na muy doxe ak njiit yaag CNG ba xam xamle woon sax ne kii di Tyson moom àndut ci mu jiite làmb ji ndax daa jàpp ne dafa am fu mu far nag yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci moom ci wax jooj nga xam ne waxoon na ko wanaat ñu ko kafa jaar nag mooy Assane Walu Gueye fàllu moom mu ngay wane ak ñàkk àndam ci Tyson ñu koy jox li nga xam ne moo di làmb ji mu koy jiite waaye yemu ca de wax na itam lu jëm ci wàllum kawar war a jiite CNC jël place Alioune Sarr moom jàpp na ne moom am na ab candidat boo xam ne daal bu mu bu capable la wala boog bu attan mbir mi nga xam ne moo di làmb ji ngir jiite ko waaye bu nu continuer ci yëglikaay bi di sunu làmb Modou Anta bu Thiès ak ambulance bu Thiès moom daa mel ni fi mu nekk nii rek terrain bi moom gis leen ci ak i bët jafe na lool lool lool yëglikaay yëglikaay bi di sunu làmb xëy ñëw tey wax ñu lu mel ni ki noonu waaye dañuy continuer ci yëglikaay bi nga xam ne nii moo di sunu làmb ba tey mu ñëw ci mbër moo xam ne nii daal fi mu nekk nii daa mel ni promoteur yi làmb yi ñoo ko suul muy Auguste Mbagnick seen yëglikaay bi ne ni leer ba leer daal boo xoolee daal 2014 daal daa mel ni bopp ba tey la gëj wàcc ci làmb ji takk ngemb mu mel ni kon mu ngi ci juróom benn saison balance yoo xam ne daal def na ko moom Auguste te pourtant day boo xoolee palmarès bu baax a baax la jot am ci làmb muy douze victoire ak yëglikaay bi xëy na tey moom sunu làmb ñëw andil ñu ka nga xam ne nii moo di Auguste Mbagnick Sène ci ab taxaw seetlu boo xam ne def na ko ci moom leneen loo xam ne tamit wala keneen koo xam ne mu ngi ci yëglikaay bi da nga xam ne Marley lañ koy wax moom nag moom mooy Kayoré Bébé Saloum mu ngay indi ay leeral ca la nga xam ne nii daal moom la Bébé Saloum bëre ak Franc ba ñàkk combat ba waxtaan wa nag Assane Walu Gay bu sunu làmb la ko seqal yëglikaay bi xëy ñëw tey wax nu ko waaye bu nu demee fa nga xam ne nag moo di ca record moom kanu fay fekk xam-xamam dafa jëm ci wàllum sport de combat mu jiitoon la nga xam ne moo di INSEPS ñu koy wax professeur Djibril Seck moom nag ñëw na ci waxtaan gu yaatoo yaatu ci yëglikaay bi record loo xam ne mook Abou Ndour ñoo ko seq lu yaato yaatoo yaatu ci tamit duggug Tyson ca CNG ba ak ka nga xam ne nii moo di Yékini loolu lépp ñëw na ci moom professeur Djibril Seck waaye bu nu continuer ci yëglikaay bi record mu mel ni kii nag Gris Bordeaux moom ak ñamu àndal ci wàllum Covid 19 bi daal ñu nga ca bëgg a taxaw ànd xool nuñ koy boxe ngir jële ko fi yëglikaay bi xëy ñëw tey wax nu ko dóor ko mu daanu daal mu dem la ñu bëgg keneen koo xam ne moom Covid 19 bi moo ko tëj fa mu nekk maanaam ñu confiné ko mu Yékini Junior ma nga xam ne mu ngi ci États-Unis te kat la mu doon waajal mooy combat Papa Sow bi ngir mu ñëw jógee états jàppale ko la naroon ngir mu daan ka nga xam ne nii moo di Siteu waaye daa mel ni ki daal la mu bëggoon réussirul ndax nag coronavirus ba moo fa jaar keneen koo xam ne moom la mu bëgg mu ngi koy réussir mooy Jamaïcain di ab xale nekk ci làmb ji waaye daa mel ni daal moom diggante Gambie Sénégal fi mu nekk ni daal taqale na ko ci wàllum làmb làmb dafa doxal lu leer a leeral donte sax ca gàmbi googa mu ne ci ay xibaar daa mel ne am na ñoo xam ne ñëw ga mu fa ñëw di tëggi làmb neexu leen ba ñu ngi koy dox di wax di ko yaali yaalee jàpp ne moom sénégalais jam nag jamono jooju fipp na jàkkaarlook ñoom ne leen faalewu ma leen te mëna lu ngeen ma dara man gàmbi gii laa dëkk ndax sama yaay fi la dëkk sama baay dëkk senegal kon ëpp lewu ngeen ma fi dara te damay tëgg làmb ba mu neex yëglikaay bi xëy tey ñëw wan ñu jamayke keneen koo xam ne moom gis koo ki bët lees defatul muy Elton sunu làmb ñëw na tey daal Elton moom fi mu nekk nii gis ko day daa mel ni jafe na lool lool yaawu jaal moom fi mu nekk nii la moo la ko yitteel mooy xeex coronavirus bi ca la ne mu mel ni kon daal coronavirus bi fi mu nekk nii doy na waar lëmbe na waaye lan daan ñaan la ñuy ñaan yàlla na ko yàlla jeexal barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy suivre ci Leewtoo TV comme ni ngeen ko xamee rek situation oblige xam nga revue bi tey ni ngeen daan tàmm di gis Ndeye Coumba Fall ak Babacar wala Aïssatou ak Babacar waaw tey nag mënta demee noonu ndax li tax mooy Covid 19 la ñu wax muy coronavirus léegi nag loolu su ñëwee moom ah wolof na ko amul la nga bëgg am la fa sës rek yaa ngi dégg te du mën a ñàkk yeneen internautes yi faw nañu ma def rek jox leen ko. moo tax tey ñu jox leen ko ci façon bi bu ngeen xoolee sama ginnaaw décor bi ngeen di seen mooy grande mosquée ngeen di seen ak benn immeuble bi nga xam ne mu toog di ko fa defee kon nag di leen balu àq bu baax a baax leen ñaanal jàmm lu ngeen ci gis tamit ci sikki rek ngeen jégal ñoo xam ne bëgguñu woon loolu buñ sañoon dañ leen koy jox di ngeen ko daan amee mais nag situation bi moo obligé maanaam ku nekk toog sa kër xam nga di ñaan yàlla coronavirus bi jeex di wax tamit que ni daal liñ ci jot a gis euh, maanaam euh, li nga xam ne mooy état d'urgence bi ñu ngi ñaan sénégalais yi nañ jéema a respecté loolu xam nga dàqante beeg yooyu jaru ko couvre-feu lañ wax li tax ñu wax ko xëy su suñu wér gu yaram la nañ si bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax gis nañ ci ay image yoo xam ne xëy na euh, du rafet ci nit di ko gis maanaam dóor ay nit ba sax ay gaañu ci am mais loolu lépp pour man mënoon na mën a ñàkk li tax mu war a mën a ñàkk mooy comme wax nañ couvre-feu depuis bërki démb rek pour man képp ku mu mën a doon war nga mën a fexe yow balaa ñu yegg ci wàllum dóore ak yooyu nga mën a jéem a dugg sa kër nga xam ne su ko defee lool du ci amante waaw leneen ci des mooy bu ñëwee tey yëglekaay comme ni ngeen ko xamee sunu làmb la mu xëy wax mooy kan yi ñaari ndonoy dubale si muy Balla ak rakk ji Sa Thiès maanaam seen i parcours daa am différence maanaam bokkuñu aw yoon nu ñuy doxe ci làmb maanaam boo xoolee rendez-vous yu mag yi dañ ne da koy ñàkk waaw boo xoolee nag loolu ah am na rendez-vous yu mag yoo xam ne doon nañ ko ci xaar mu ñàkk ko mën nañ ci compter digganteem ak Euh, ki nga xam mooy Malick Niang waaw digganteem ak ki nga xam ne mooy Boy Niang muy ñaari rendez yoo xam ne vraiment yu mag la woon ci bisu làmb mais da koo ñàkk waaw mooy sport des fois la ci les grands rendez-vous nga ñëw rate ko maanaam passé à côté loolu nag xëy na li li koy indi mooy sport la ñu nekk te sport itam adversaire bi ñu koy séqal moom li ngay bëgg lay bëgg moo tax ba nga xam ne loolu xëy na di war di mën a am mais dañuy jàpp ne xëy na du cuunam wala nangam mais ci biir bëreem xëy na gis nañ ne des fois yàkkamti ak ñàkk teg mbir yi ci aw yoon ci côté athlète boo xam ne da nga préparé ay bés wala ay weer ñëw xëy na loolu dina ko ko faral di yóbbee loolu nag xëy na dina ko gën a améliorer mag estafam mag jàbbaale itam nañ grand rendez faral na di ko gagné moom ba tax ñu tuddee ko l'homme des grands rendez-vous mel ni kon moom tamit boo xoolee euh, ci côté boobu euh, bàll bëri na yu mag yoo xam ne wax dëgg yàlla si làmb bu na ko li ko ko may nag man bëreem bokk na ci lucidité bokk na ci loolu tamit dañ ko soxla ci athlète yaa ngi dégg mu mel ni kon ñoom ñaar daal yaakaar naa ne xëy na comme bàllaay magam lees ay papaam xëy na bu ñu gënee liggéey loolu dina yàlla dina dogal ko gagné waaw si ta tamit kan yi est-ce que léegi du nekkul boosu lamsaar yooyu waaw loolu mën na nekk ci xëy na côté kase mu dem ba sutle ko ñam fa fekkoon loolu nag mooy làmb parce que pour man ña ko fa dalal muy nees muy fëgale muy ñoom Tidiane Faye xalaatoon nañ nekk wala ñaanoon nañ yàlla ñoom kase yi ñuy am ay xale ñëw ci seen ginnaaw dem ba am lu ko ëpp wala defe naa ne lu baax la ci écrit de réussite écrit ba la rek ak réussite encadrement technique muy sitta ak yeneen xale yi fa des ñoom maamala gis ngi ñëw parce que tey bokk na ci mbër yi nga xam ne bu ñu lim mënee su ko bañ a lim Père Max Mbargane moom gis-gisam la ñàkk a bokk gis-gisam wala boog ñàkk ànd ci dogalu CNC bi jëm ci rajo bi arbitre yi la wax tey waaw muy loo xam ne tamit ah waaw ku nekk ak na nga ko gisee rek waaw ndax itam yaakaar naa ne daal moom bu waxee si lamb war na ci wax wax ndax kilifa la Abou Ndour moom ñu mu ko mu xëy seqal waxtaan mooy professeur Djibril Seck bu jiitoon INSEPS na daal bu ñuy dem ci wàllum loo xam ne des bu baax a balaas koy def ndax nag gaawanteeg yàkkamti moom saa buñ juree doom mën naa doon rëccu balaa ci loolu am nag nañ ko jàngat càng càmbaraat ko ba nga xam ne ëllëg bu ko defee njëriñal làmb lay doon mais njëriñal Sénégal lay doon di wax ne tamit Fallou Ndiaye gis nañ ko ci yëglikaay bi di sunu làmb mook Assane Walu ñu seet Assane ah, euh, tey seen que moom jàpp na ne àndu ci jamay gay itam bi ñëw na ci moom ci diggante Gambie ak Sénégal lam fay wane mel ni kon moom ku jara jàppale la ku jara encouragé la yaa ngi dégg parce que tamit mu ngi wane ne que ñaari réew yi ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi donte tamit des fois sax am na dina

nañ ciy taxaw tout le temps moom dafiy jiite jóge fi ëllëg keneen ñëw kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax xam ne ay sénégalais lañu xam nga Sénégal moo ñu ñor te moo ëpp lépp ci ñu di kontaan ci ñëpp ñaanal ñëpp jàmm waaw di leen wax nekk daal leen jox rendez-vous suba rek ci beneen revue de l'arène di nuyu ñëpp di nuyu waa Leewtoo ay sa fay nam naa la Ndeye Kumba Fall nam naa la ak Fall ak Yàggamaar du mën a ñàkk ak biram